gëj a sangu. kan yow. yow da nga yab yow si man ngay tëkkale sa waaw lu tax. yow yow yow ma ko bu góor doon boobu tey ma nga may nga may lu tax man kañ nga gëj a sangu laa wax. mu ne kañ laa la waxoon ne ma ndox ci dus bi keroog fii a démb xaw ma. barkaati démb dimanche bële paase. vingt bële paase du bii de bële ci ginnaaw. waaw nga waxoon ma boo ma fa géej sangu ba léegi sangu. waaw ba léegi sangu. loolu nit dina toog dimanche lundi mardi mercredi jeudi juróom-ñetti fan sangu woo. waaw lu tax man man man man dof bu silvissé la. waaw ah, dof bu silvissé juróom-ñetti fan ba juróom-ñetti fan lay sangu. man normalement un un mois laa waroon toog sama sangu. gars yi dañuy gars yi gars yi sama gars yi aliéné yi dañuy toog ay ay cinquante yi sangu mën nga koo xam. yow àgg koo ci aliéné. maa maa leen gën a service maa maa dama leen a gën a ak beneen bi mooy keroog bi ñu nekkee suñu réunion suñ suñ suñ bi ñu aliéné mooy. gars yi solo solo kii bi suñ gars yi waa ji nga xam ne mooy suñ ménager euh, sec sec mooy suñu secrétaire général mu ne gars yi ñànku lu tax mu gënee na loolu ay mbokkam bàyyiwuñ ka wala am mbokkam wax na de ñu ne ay mbokkam dañ koy dimbali am na koo xamante ah, suñ benn allié na ñu na fa ne passé xanaa la moo lay xiif loolu jaaduwul xiif a xale xiif kii li muy am na solo dafa am nit yu yor ñu mel ni ñoom ñoo xam ne dañuy bàyyi seen seen euh, ñi feebar ci mbedd mi duñ leen toppatoo du yoon léegi yow yaa ngi koy toppatoo moom waaw ah sol yére yu baax sol daal moom moo bëgg a sol dama cee ko chaque jour boo feebaree nga faju yaa ngi nii xuuxaan boo ba léegi ma topp la faju wala nga xuuxaan tekki ba ah boo ko fi tekkee gis mu am na koy wax fii papa i giwul bi la nekkuma fi nekkuma fi ne la ko nekkal gaaw waaw ñame ma xaalis fee la waaw nee na ma naam nee ma naam nee ma naam naam waaw ñame ma xaalis fee la mu naam waaw ne lii suñu yëf la moom. Eh. lii suñu yëf la. am na ko na naka mu. ah suñu yëf yow nii. kii moom aussi waaw ñaar bëgg maa xaas ma sëy na bu. Oh, bi damay léegi léegi jégalu jégalu ñu ngi eh, waaye doo sàmm. sale sale njaay njaay njaay. njaaja njaare fu cel gal fatima tangu tibina ko <laughs> eh. ko jatam kini bom ñebu ñangu bo wata gele no wala ñebu kuma kili fay buli jeli busku la sajjo ko dem wali ko daf sem ko basin kenn nga fane ñu man sama gër yeeg sa ko tabari kar ko wacc xam nga yow samaam samaam gars yi nga xamante ni ñoom fi nekkoon ñëpp ñoom ñëpp dañoo dee samaam deewul. waaw ndeka samaam doomu laam la gars yi daal ne samaam. ah ah an seen baay an seen baay. ñëw si kër gi naan an seen baay. waaw waaw yéen xoolal mënu ma nag xam nga. nga wax sa papa nga naan an seen baay yéen wuyu ma leen def leen ndànk rek yéen sama diggante ak yéen xam ngeen ne dépassé loolu yéen xam ngeen ne man maay seen géwélu baay li seen géwél yéen ñii ñooy sa géwélu baay ndax nag tubaarikalla macha allah ay nit yu am jom ngeen ay nit yu am ay nit yu baax ngeen ah. macha allah seen yaay tey bu dellu si woon jamono du ngeen changé seen doxalin du ngeen changé toogaay dëgg la tey ku leen xamul tubaarikalla macha allah bu ma woowee man xam naa leen yéen Fat Diagne mooy seen yaay mbay jaañ ah. dem ba ak tabara jaañ dem ba maa farma yaasi jaañ dem ba gànjool giñaax sa kër maam dem ba daali may sa joor sa maam ñànku dafa rambal dëkku ma jooja njaay diggante baaru gànnaagu foo coro yaa suñ joxo bàyyi diggéen sàmba buuru gaan oh. maa siñeek oh. maa joojo kulukumbaan gaaw yaande jàmmalees jorom fa <laughs> <laughs> yaa xam say maam yow yow yow nga barke rasulaay yow nga ne sama maam yi léegi am na loo waxoon ñu ko daanu woon xaw ma waaw sa maam kooku loolu man bàkkeetuma la côté boobu. ko ngi si yoo xam doo doo fàtte ba na maa la ko ñam. lii waaw kii nag kii nag su ma demee. wax na sama sa papa nekk fi dafa génn. xaaral rek nekk fi. waaw waaw sa papa. sama ma daan def nii. sa papa nekk fi dafa génn. waaw waaw daa génn moom. moom moo ne daa génn sa papa moo ne daa génn. Ah, sa papa nekk fi nekk fi. dafa génn. bu ma nee nii langa bi ñëw la rek nga génn. Faama dem na Faama. demul demul demul dem na <laughs> waaye daa bëri wax waa yow. waaye waaye daa bëri wax mu jël ma ne ko de ma ne ko ay tam. ah dama dama. papa yow. dama dama. langa bi ñaana. langa bi ñaana. langa bi ñaana. papa bàyyi leen bëri bi sama kaw. waaye bàyyi leen bëri bi sama kaw waay bi. ça va nee naa la. kii ku. roppalaan yow géwél bu ëppal nga. yow ku ëppal nga. nee xooma. ah nee xooma laa wax. sa diggante ak yow laa wax eh dëgg sa làmmiñ laa wax. et puis ngay fen soppeekoo gaaw looy fen soppeekoo gaaw ñaambeeg maa xaar si nag sëy na bo pour ah, sëy na boo soppee gaaw booy tagg nit tax xamoo ko gis ngeen géewalu léegi da ngeen a war a régler te tam documenté wu jàngi balaa ngaa topp nit ki di ko tagg nga xam ay maama lu ma nekkee ñaambeeg maa xaar si nag sëy na waaw lu ma nekkee ay tabara waaye déglu ma laa wax yow ku la tabara dama ne bul duggati sama kër te xamoo ma demal ba jàngi ma xam ma soog maa dugg et puis yow da parce que da ngay loqati waate loo may loqatee loqati waate doxatoo eh. na noppi na waxal dëgg rek noppil ndax nga sañ koo wax man dama laa luqat léegi xam nga lu ma bëgg man damaa ñëw ñaan ko ak xam nga lu ma bëgg dugal ma fii xam nga lu ma bëgg doo fi nekk di sol ay gani laa ma nekk di sol sama xiic mbal yi te lu ma yor nga muucu ko ba ma lii tenue de travail la waaw dama ni tenue de la man de lii bu ma ko amoon lii de bu ma ko amoon tabaski jotee wala président de la république woote moom laay sol aw ma ko waaye déglu ma yow waa léegi déglu lii demal ba ba jàng ma ba xam ma soog a ñëw. ay waay xanaa xamati. <laughs> xamoo ma xanaa xamati. dama laa mere. Massiré Sédié xanaa xamati. Fatim Penda Ma Ndiaye xanaa xamati. Tagalam Saas ma xanaa xamati. tagal foofu lan la. daf may jéem a tagg te xamuma booy tagg ni danga koy xam xamoo ma bu ma tagg taggati waa léegi tëgg bu ma nga tagg ma yow yow ñaanku yow ñaanku yow ñaanku yow si yow ñaanku tey nga pare tey derrière sa grand homme y a une grande dame. ay waay laa diva ak faali maa lobe samba la sukaabe maa lobe samba jekk ndee la aali kumba jogo maay ba sooli ndaal maaji eh. maaji maaji maayaay jëñ maaji maayaay waaw bay booru faaloo bay booru faaloo faal day kendeelaay maamam fuldu daw ña koy koy lalal ci suuf eh, rek dogal waay yow ma faari ko ma daa tëx bi sama bu ma saana génn fukki bala juróom ñaar ñoo daan tuy aw saway dameel ma a puy dameel ma samba tàkko dameel amari ngoone sobel tubaari kala masala eva 33 dameel yaa ngi sama bi nga koy doxee te wane woo ko leer na 33 dameel ci réew mi ñëpp sama am kenn rëccul eh, Euh. ku baax ci réew mi yow la jàppale. xam nga ni lii ko rëccu eh, eh, déedéet déedéet man ay waay boo ma meree ay man man jàpp naa ko. tubaarikàlla jàpp naa ko ndax xam naa ne loo ma mere mere mere mere kii mu nekk sa reenu xol te tubaarikàlla macha allah nee naa ko damaa xami maamam. waaw maa samba buur la. Eh. faali maa samba yow ku la jam nga fayu. waaw leer na ku la jam nga fayu. waaw xeeb naa ko nag ndax fi nga ma fekk la waaye maa la joxaat rendez-vous nga ñëw ci kër gi ah. ma dàbbali ko ba mu neex ay waay ndaw samba ndax kenn xamuma yow rek yaa ma xam laa ilaha illallah ay waay ndaw samba léegi nee ko nee ko nee ko kii nee ko munu be volom xuuli be teexi eh, eh, loolu dama ko wax xaar xool xool oui eh, ma defal ndànk baal leen baal leen oui ma waa jeex na waa jeex na waa jeex na oui ma oui ma wuy leen ma wuy leen ma waaw loolu baaxul loolu baaxul xool wuy wuy ma defal ndànk euh, gàcce rek ngeen may teg gàcce rek ngeen may teg gay wuyu ma fii ñu fi am gàcce bëri na man miy dugg ci kër sax dama am gàcce ñii bi may dugg su léegi dañ ma dañ ma doon bàq te ñun géwél ni ñu mënee waaye noonu lañ mënee maye biñ ma bàkkee ma jox leen ñaari junni nee nañ ma jox sama ñaari junni lu tax ñu lay jox géwél kañ la daan maye di nangu waaw ah, eh, ah, eh. ma bàkkaat leen bàkk nañ ma delloo ma bàkkaat leen duñ ma ko delloo géwél daanu maye di nangu eh, nijaay xam leen àddina ah kii géwél la ñëw ci kër gi di leen wayaar yéen bu ngeen ko dolli waru leen a jël li mu am as mu billaahi wallaahi taalaahi moom it nañ jox liñ ko joxoon na la jox liñ ko joxoon aywa jërëjëf ko xoolal xoo xaan doo sol suy lépp fu ko sol ñang xam nga yéen a ngi eh eh waay bu leen teg seen yéen toogal man eh oh, man eh manum toogal uy ma toogal tabaski ren bi daa nara neex bu soobee